di ko jalan yàlla yang yàlla yokk ay yang yàlla yàlla yokk li nga xam ni moom mooy ay yërmande moom ak mboole ni yi alayhi salaatu wassalaam suñu mam boo tey nag ci xutba bi mooy en tant que jullit lan mooy sa taxawaay ci yeneen bi nga alayhi Isa bnu Maryam nag buñ ko waxee yeneen la waaye kéemtaan la ci kéemtaanu yàlla yi moom Isa bnu Maryam ndaxte yaayam Maryam baayam mu ngi tuddoon Imraan mu nekkoon yéene ku baax bàyyi ci doom Maryam ahbaar yi ak rubbaan muy labbe yi jamono jooju bi papay mariam gaañu kon nekk na ci te fekkewu sax juddu ki nga xam ne mooy doomam mariam ñuy jëkkante nag kan moo ko war a yor moom yaayu aysa mariam werante nag ma toll ci léegi nag mu mu jël juboo moy ku nek da ngay jël sa xalima bam lañ daan jàngale ñu dem ba ci jeex eh. ba ku nekk sànni sa xalima sa bindukaay su gën ngeen ko ku fu am taxaw ci ndox mi rek kooka mooy yar marina mooy yar mariam ñu dëppoo ci loolu dem nañ ca géej ga kii njëkk a sànni sànni Kalimantan kusani ka Kalimantan kusani ka Kalimantan ba yéeg ci Zakaria bi Zakaria sànni xalimaam taxaw ci ndox mi ñu ne ko ah kon de yow yaay ki nga xam ni yow yaay Mariam Mujer ko nag di ko yar mu gis ci moom bare kéemtaan yi bokk na ci moom Maryam bi nekkee ci mihraab bi moom day tëju te moom Zakariya bu fa ñëwee pour andil ko lekk andil ko naan day gis ne moom moo mujj a tëj bunt bi kenn jaaru ba te itam gisul ku ko jox lekk gisul ku ko jox dara te bu ñëwee day fekk Mariam am lekk boobu am na loolu yéem ko lool loolu yaaxu ko trop wante nag kéemtaan boobu ak yandox boobu li ñu soxla mooy Isa ibnu Mariam lañ soxla ginnaaw bi ñu paasee loolu yàlla def Mariam ëmb loolu nekk lu amul borom kër ba pare te ëmb bi di ko khas lu nekk yekk nañ ko ya taharu ma kaana abu timra a sawin wa ma kaana ummu kibariya lii kat kenn mus saya wajib sa papa ni mu baaxee say ni dem

juróom-ñaari weer wala juróom-ñetti weer wala juróom-ñeenti weer wute nañ ci daal waaye daal alquran li ñu wax fa xamalat bii fantabata ñaari faa daal la expliqué ëmb ko fa saasa rek wasin ko fa saasa muy benn fan bu dee yokku alquran ba bopp loolu la waaye am na ñu ne ëmb normal la ko ëmb wante ñi wax loolu boo seetloo li gën a mun a nekk kéem daan mooy da koo ëmb ixraata wa silka fasaada loolu moo gën a mun a loolu moo gën a ndax mu'jiza buñ koy wax muy xar baax lu wuute aada lu wuute li ñu xamoon kon jàppal ni loolu moo gën a lënd kon nag am na doom waa dëkk yëpp ñëw nañ nag di ko xas ñëppayimuwoon ñëpp yëg nañ ko ñëw ci ay mariam nangam nangam yaa mel nii yaa def nii yaa def laa moom nag waxu dara ndax yàlla am na lu ko sant ne ko waa dëkk bi bu ñu ñëwee nee leen nag inni nadartu lirahmani sawma falan ukallima yawma indiya tey dama nigal ne duma wax ndax koor bu njëkk boo wooraan ci al umamu saalifa boo wooree doo lekk doo naan doo wax waaye ci yërmande yàlla ñu teggil ko ummatu sayyidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam mu joxoñ fa ashaara ilay mu ne nag lii tee wax leen ak moom fa ashaara ilay bi mu joxoñee ñu ne ko kayfa nukallimu man kaana fi l mahdi sabiyya nan la ñuy waxee lii nan la ñuy waxee ak lii ba xet koo xam ne léegi léegi ñuy wax ak moom lu ñuy wax ak moom aha yàlla wane boppam nag lii du commencé qaala inni abdullah ataniya alkitaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubaraka ah kay wax leen ak man lii du doy xet mooy wax ak ñoom qaala Aisyah lan la jëkk féetee ci inni abdullah man jaamu yàlla la ataani al kitaaba jox na ma wa jaalani def na ma nabiyan may wa jaalani def na ma mubaarakan ma kon nit ñi commencé yéewu lii bu doy kat di wax di commencé di waaraat moom Aïssa bnu Mariam yàlla moo ko ko dëgëral mu dem nag waa dëkk bi coow commencé na am doomu Mariam bi doomu Mariam bi mu doon yéeme demee ci loolu ay dakk Mariam bi mu commencé dëgër yàlla di ko jox ay mission yàlla daf ko doon wërloo mu wër ci àll bi ak ci dëkk bi ak ci dëkk yi di waaraat moom Isa bnu Mariam siyaaq dañu tuddee siyaaq du dugg dëkk par dëkk di waaraat te ci loolu kat la ko yàlla joxe ay mujisaat ay kéemtaan yu yéeme moom ay ndax lii nga xam ne yàlla bi yàlla nee yow yeneen bi lii ma lay nettali yi di la nettali yeneen yi yu jiitu woon zaalika lii ma lay wax nga mun koo xam te fekkee woo ko min anbaa'il ghaybi bokk na ci solo yi fàtt nuuxihi ilayka dañ la koy leeralal yow yeneen bi nga leeralal ko sa xeet wa maa kunta ladayhim nekkoo woon foofu sax is yulquuna al Maryam ne ayyuhum yakulu Maryam wa maa kunta ladayhim is yalla neena ko neewon ko tax bi ñuy sulo kan moy yar maria li yépp nak yalla diko ba sa diko ko nekkali mu ñeneen ay sab nu mariam mu ngi wër nak nit ñi dégg nañ ñeneen amul benn yeneen lu dul jox na la ay mojisaat ay kéemaan lu tax lolu nak mo jaadu parce que bo nee yow yalla mo la yoni da nga wara andi firnde bu de yeneen ci da nga wara andi lu tax ni lii wane nit yàlla moo la yónni ante nag ndeysaan Sénégal dafa nekk eh, réew moo xam ne réew mu doy waar ay yonent am na fi ay xutbu zaman am na ay awtaat am na ay lu nekk la ñuy ay awtaat ak ay laxtaam yooyu yëpp ci sa baat yi ma lay wax nii sax saabay xamul doone wu téere salafu saalih doo ci gis benn ay xaw ay awtaat ci leen ay ay ay baat ay moo yoo xam ni ñoom ñoo ko tere waate nag yeneen bi waxoon na xeetam lu béy bu baax yéen bi neewoon na ci sahih muslim sama ginnaaw dina am ci sama xeet ñoo xam ne dañuy woo ay yeneen ay waxkat lu ñu dëgg la bu leen leen topp bu leen leen dëgg ah ñun de Sénégal de am na am na yeneen yu de te gëm nañ ko it te am na ñu koy topp itam te yeneen ci bi nag ne woon na sama xeet sama ginnaaw dinañ woote woo ay yeneen mënoon naa taw ku ne nag ba mu ne Sénégal yàlla nee na yeneen ci bi yii ma lay nettali yépp xamal ni dama la koy dëgërale pour saw xeet xam ni yow yaa ci dara ay sat nu Maryam bokk na ci kéemtaan yi gën a rëy yaayam nga ka daan bàyyi muy jàng na ko tuub benn bis patron bi ne ko jox ko ñetti yére ne ko damaa bëgg nga cuubal ma ko ñetti façon cuub bii na weex diine ñuul diine xonq tisi bu weex ah, tisi bu xonq bi teg naa ci wëñ bi ci war a def benn bu nekk tegal naa la ci wëñ bi ci war a def mu dem xam nga tey lii nekk ak paan bi ñu koy cuubee wante Iisaa ibnu Maryam ci kéemtaanu yàlla dafa boole lépp ci benn paan patron bi ñëw fekk muy commencé xooj mu ne ko yow da ngaa dox yow yàq nga li ma la doon mu ne ne nekk ak pëdëram mu ko dégg naa ko lii kay mun a du nekk mu ne mun na nekk xoolal rek mu dugal ñett ci yëpp ci biir bi mu defaree ba pare weñ génnee yëkkati loxoom ñaan yàlla ne yàlla ñetti couleur yi yëpp benn bu nekk yàlla na ko def mu mel na téléphone bi bëgg bii na bu la bii na ñuul bii na xonq bu wañee yëkkati bu bula bi bu xonq bi génn mu weñaat yëkkati bu ñuul bi génn façon bu ne ko waaw yow li lan ma ko mu ne mu ne ko ah xamoon ni man yeneen si laa yàlla ma yónni mu ne ko ah lii kat xamuñu ko woon te lii ku ko def doone du neex daal di koy gëm nee nañu foofu la tàmbalee am ay xawaari yu xawaari yu la mooy ñuy dëgëral gannaawam dañu ci loolu continué na di dox mission ba yem ci ay ñi nga xam ni ñoom ñooy ay nappkat nappkat yaa nee nañu sama oon moo leen jiite sax dañoo napp fa amuñu dara mu ñëw ne leen ah ñu ne waaw ci ci ni fii amagul dara nappaguñu dara mu ne bëgg leen xam leen ni tey di ngeen napp ba doya mu ne loolu mënul ñu ne ko loolu mënul nekk ñu ne naka kay mu ne ko ci loxoom ñaan yàlla ne yàlla maa ngi lay ñaan nappkat yii ci ñëw ñoom ñëpp nañu nappa napp ba doya nañu am ba doya seen gaal yi na fees dell ba ñu bàyyi daaneelul waxam na lu dul ah nappkat yi commencé jën yi di leen lëkkante ñuy ñëw ak doole ku nekk des sa gaal yëpp ba mu fees ñu génn ci bi nag ah ñëw kat fekk ko fi mu dox ne ko ah yow kat ku baax na li ñu waxoon am te lii kat képp ku ko def doo def nee yow yaay kat mu wax leen moom mooy kat ñu ne ko ñun kat xool nañ fukki nit ñun ñi ñëpp gëm nañ ni yow mi ñu yéenante ko ndax dégg nañu waa dëkk bi di waaye ñun nag duñ la musa weddi ñooñu ñooy ay xawaari yu munam ñooñu ñoo ko dëgëral nee nañ ñu ngi tolloon bu fukki nit ak ñaar la tax ñu tuddee la xawaari yu na nee nañ dañoo soloon yu weex tàll loolu moo tax ñu tuddee leen xawaari yu ndax amul benn yeneen lu dul di am yeneen bi nee na amul benn yeneen lu dul di nga am ay xawaari yu ñu lay dëgëral te yi moom mooy ay xawaari yu ñoom bokk na ci kéemtaan yi nga xam ni Iisa ibnu Maryam def na ko alayhi jamono ju la fa gën a rëy la fa nit ñi gën a ak yeneen tax ndax jamono Iisa ibnu Maryam amna febar bu de bar nga xamni ni yaram bi day wéx di génné ndox mu nekk febar bo xamni day wàll docteur yi jamono jooju kenn mënu ko fay ba ci jamono yi tollu nii mu ne mom ay tab lu mariam su ñëwé fekk ku mel noonu day ñëw rek raay ci sa yaram nga wër dëng melni dara musula jot sa tey bi delluwaat rafet changé waa dëkk bi yéen dañoo ci loolu mu defaat beneen kéemtaan day fekk koo xam ne dafa juddu silmaxa mënul gis day ñëw raay kanam gi mu dellu di muy gis yor ay bët eh man de maa ngi gis sama bët yi ñëw na kan moo ñaan ci sama kanam gi mu xool yow mii la kay daal di koy gëm dañul di def ay kéemtaan ay sat nu Mariam day fekk ku amul tànk mu ñëw raay ci tànk yi xanaa mooy la day ñëw raay ci tànk yi tànk yi wéer mu jug dox ay soxla dañul ci loolu benn bis nag dem na ba baytul maqdis kéemtaan yi ci ëpp foofu la ko defee Jérusalem bi mu yegsee foofu di waaraate waa dëkk bi ne ko jox ñu sa kéemtaan wan ñu sa lay mu ne waa baax na andi ban ñu andi ban tooyal leen ñu tooyal mu daal jël loxoom tibb ci ban daal ne ko kun tayran bi iznillah rek sànni loolu mu tooyal ci loxo bi ñëpp ko yëkkati loxoom ñaan yàlla ne ko nekkal nga naaw luy naaw mu sànni rek ni ñu gis mu nekk mu nekk li nga xam ni njanaaw la di naaw li ci gën a yéeme nag mooy yàlla lan la ci nam mooy mucjisa la ci nam mooy kéemtaan kéemtaan gis nga loolu doon naaw yàlla def na ko mu nekk dugub li gën a yéeme njanaaw yi naaw yëpp borom xam-xam yi nee nañ jubub moo ci gën a yéeme parce que deux heures de naaw ci bis bi yëpp ak ban heure nañu bu marax bi passé mooy bi sooyee une heure de temps ca la li nga xam ni mooy kii di naaw la laa wax léegi sax euh, li nga xam ni mooy njubub yi di naaw une heure de temps boobu lay naaw bu lëndëmee ba lëndëm bu lëndëmee ba lëndëm dootuñu naawat bu fajar gi fenkee waxtu ci la naaw bu weesoo dootuñu gisati mooy yéen ñaareel bi borom xam-xam yi nee nañ njubub naaweewul dung mooy amul dung yaram la amul dung boo ko munee boo ko munee recherche recherche ko ba xool yaram bi ndax donc yi fii loolu di naawee ndax donc yooyu la am déedéet amul donc mu ne bokk na ci kéemtaan yi day jur te pourtant day na ci kéemtaan yi nàmpal comme jigéen ñi muy nàmpale bokk na ci kéemtaan yi day lekk ci ay panam maanaa day gis day gis règle comme jigéen bi gisee règle kon yooyu yëpp ay kéemtaan la yoo xam ni ay sabnu Mariam def na ko ci misaal ci ci njubut boobu xam ni dafa yëkkati tën rek sànni rek mu nekk ta tayram muy naaw borom xam-xam yi génnee nañu addis ne loolu kat njubut la ñu gis ko kon ay sattu Mariam dañoo di def ay kéemtaan ku mu ñaanal sa aajo faj loo feebar feebar bu la ñaanalee nga wér bokk na ci kéemtaan yi yàlla nag moo ko ko def loo am na xaritam boo xam ni dafa feebar bay waaja faat moom Iisa bnu Mariam sukuraat na faatu na rakk ji ñëw ne ko ah yow de sa xarit bi mujj naa noppalu de démb néewoon naa la dafa feebar waaye tey jaay na mu ne ko ah mu ne waaw waaw denc nañ mu ne waaw denc nañ suul nañ ko ba pare na jugal war na bàmmeel nit ñi yëngu ko rek topp ko dem muy waaxu di waaxu di waaxu ba yegg ci bàmmeel bu mu yeggee ci bàmmeel mu ne ko diw mu ne naan ci biir bàmmeel mu ne ko jugal ci sa ndigalu borom jubal ci sa ndigalu borom mu ne bësëg it génn ci bàmmeel bi mu sànni ko ak nit ñi nee nañ sax am na ay doom borom xam-xamu yi digg na ne bokkaane ci coytaan yi nga na ko ba tey ñëw na fekk benn meer benn doom bu góor rek la am moo ko daan digg doon ci feebar na sukuraat ba dee muy jooy jooy métti xamatu fan la jëm moom meer defar nañ xale bi góor ñi yéene nañ ko jot ca armée ga mu dab leen ci diggante bi ñu leen dabee ci yoon bi ne leen yéen wàccee leen néew ñu wàccee néew mu ne diw mu ne ah mu ne jugal ci sa ndigalu borom waa ji ne ko ñett bi mu ne sànni leen ko ay yére ñu sànni ko ay yére ñu doxi soxla yooyu ñëpp nag ñu la koy wax lii ñu lay wax muajida la lan muajida mooy xar baa kéemtaan ni yalla moo koy dëgëralee ay yeneen tam parce que xel ko ko naw yàlla moo ko man yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem na ci ñaar lan moo ko ko yóbbu yàlla moo ko ko parce que yow léegi rek moo wér ñu ne loolu sax garaawul mais dem na baytil maqdis six cent kilomètres madina baytil maqdis wala Makka baytil maqdis six cent kilomètres Makka baytil maqdis six cent kilomètres nee na dem na ci benn guddi ñëwaat ñun nga xam ne bu ñuy dem pour commerce bi demal ci dénn bi dinañ def ñetti weer moom dem na ci guddi bi dellu si ba nee na ndeysaan fii dañ doon wax ne itam nag ci Màkka Abu Lahab ñëw Abu Jahl ñëw te déglu mu ne Muhammad mu ne ah nee nga def nga bay dañ def nga asamaan juróom ñaar ñëw loolu sax garaaw dem nga bay mag ñëw loolu sax garaaw ndey joor yeneen bi yëkkati yëkkatil sa tànk càmmoñ mu ne kon ma daanu mu ne kon mooy yéegee ci kaw xoolal xoolal dañoo jàpp ne loolu ah déedéet du xel Lulu, doo yàlla moo ko def loolu mujiza mooy kéemtaan boo xam ni yàlla moo ko def Musa alayhi salaatu wasalaam jël yet sànni mu nekk jaar loolu xel na ko waaw yooyu nag boo ko gisee nag yàlla di ko def dalee yeneen bi alayhi salaatu wasalaam di ko defloo ay yeneen taam di ko defloo yeneen bi alayhi salaatu wasalaam te xel na nga ko xamal ni ko yàlla moo ko ko mu ne bokk na ci kéemtaan yi ka ci kéemtaan boobu la sax mu jënd mu moom Isa ko ñetti tagg bi mu ko daggee ñetti dagg ne ko dugal ko ci saag fi ñuy jëm dafa sori tukki bi ndax bu ñu xiifee ñu lekk mais ñu départ di dox di dox di dox ba ci yàgg ñu toog noppalu benn xale bi nëbbatu lekk benn dagg bi xam nga ñett la woon mu lekk benn nëbb ko nag pomp jébbi ñu bu ñu demee nag ba toog war a lekk Isa ibnu Maryam ne ko diw mu ne ah mu ne andil mburu yi mu mun a andi mu ubbi saag bi génnee benn ñaar mu ne ko ah des na benn ñett la woon ñett laa dal di jox mu ne ko giñ naa ko ci yàlla ñaar la ma ko mu ne ko ñett laa la mu ne ko giñ naa ko ci yàlla ñaar la ma ko kon baax na dugalaat ko dugalaat mu ne nañ dem ñu dem ñu départ fa taseeg benn silmaxa koo xam ni ay bëtam dafa mu mu ne ko silmaxa bi gaay mu ñëw mu ne ko xam nga ma mu ne ko xaw ma ne mu raay kanam bët yi dellu si mu nekk man maa ngi itam ne man yem fil ma xam ne xale mu subhanallah kii dafa raay kanam si ma xam ne bët yi dellu si waat ni moom rëy mu gëstu ko ana mu ne ko demaat di dem di dem ba sëf nañu koo xam ne njéegi la mënatu ñoo toog mënatu ñoo dem fenn te amu mu ne ko ah yow fii ndox la fi amatuñu gaal new fi dara new nu ñuy def mu ne ko ay ca ci kaw ndox dox mu ne ko loolu moom mënul nekk mu ne ko bismillah yéeg xool ay tar nu mariam ne bismillah yéeg di dox ci kaw ndox mi moom tamit mu ne bismillah di dox ci kaw ndox comme kuy dox ci kaw suuf daa mu yéeg rek nyedok dok bawah kita begini juga kuat menang sekarang dah ni mungkin lagi dulu tu. ndak kita wah ai pun rumah yang mungkin dia kena kok ah kon kam dulu ni wah wah bila kan ambil ini dari bumi wallahi bismillah depan bah jam mula ni kau jadi di jam di jam di jam batal itu dia nak bahara ya. al-bahami amudara mu ngi seen nag Aysa bu Mariam dajale na def na benn jàll defaat beneen jàll defaat beneen jàll mu ñetti jàll mu ne jàll bu njëkk bi nekkal or yow it nekkal or yow it nekkal or ci sa diggalu boor fii ni rafet ñetti jàll yëpp nekk or di melax xale bi xulli ko ci subhanallah ñu ma muy ay or ah

pasaka kaman kuma anak ko kami xam ni àdduna ci mbiram ak koo kami ni moom tamit jëlal yëpp jël bagaasam moom ay kat nu mariam continuer tukkeem dem bàyyi fa waa ak ñetti jan yi comme nag la bëgg mu ngi toog ndeysaan yàlla natt ko am ñetti tukki rek fekk ko mu ngi ko ñetti fan la ñuy gisuñu ku ñu agressé gisuñu ku ñu rey benn nit ci àll moom pexe ñetti jàllu oor kii de dañuy ñëw rek dal ci kawam jeexal ñu ñëw rek ku nekk dóor sa jaay bu seet buy ñàkk ba seet comme ñetti lañu woon nag ñu ne balaa ñuy seetloo ku nekk jàll jàllu oor ah waaw dañ ciy ba suuf la kenn jël kenn jël ci ñoom dem jël ci ñoom ñaar ñi toog di xaar kenn ku nekk ñu ñu ngi bëgg a woor ñoom tamit ka def ñu ko yow loo xalaat mu ne ko yow loo xalaat mu ne man damaa xalaat ni comme ñett la kii dem bu ñëwee nañ ko ray ba mu ñu rayee kii xam nga mu ne leen ñett ñetti jal ñu bu nekk ñetti jal nga jël benn mu jël benn benn bu ñu xaajoo ko mu ne waaw loolu danaa la bëggoon a wax mu ne nañ def nañ ko xaaju ku nekk benn sa jaar yàlla dogal yi ka dem commencé bi di jënd yàq toog jënd bu ñor man de dama xalaat ni naa jënd bosol def ko ci ñam bu ma demee jox sama ñetti xarit sama ñaari yi ñu lekk bu ko lekkee ñu dee ma jël ñetti jal yépp ñu toggal ko ba mu baax jox ko mu jël bosol suuf moom lekk na ba suuf li def mu suuf bosol pour ñaané bu bëlëgee daal di faat mo andi teg dafa teg ndam li rek gaay dal ci ko dóor mu ne ne nak bala ñu na ñu lekk ba ba door a séddoo ko rey nañ ko ba pare nak bala ñu séddoo ñu commencé lekk lekk ba ci digg ku nekk japp sa biir di di di weq ba sét buy ñoom ñëpp dé nañ Kajat aida tumare lele tuti na badian dinyawan fek ba ay new agar lele ini ti new na fek agar lele nyon ngai agar lele rayan na ni sel ni ndax lan alalu adi yoy yep nak ay kat nu mariam bu ko di def ay kentan ni lo lolu taxul ni war ka def yalla de lolu taxul yalla loolu taxul ñu war kaa jaam ndax aw nitam waa dëkkam daw nañ ko gaa def pour rey ko ka ko boole woon muy al askar buggi moom moo dem boole ko waa dëkkam yàlla jël melokaan bi sax def ko ko ko boole mu ñëw far yàlla nekk Iisa yàlla yëkkati Iisa bin Maryam jawande ko ɓe jow rek jolteɗe jaako ɓe jow moom askar ko ko boole won na xamni ne la won ñu ray ko japp ni nak ray nañu aysa bnu mariam bal rafaahu llahu ilayhi yeneen bi alei salatu wasalaam nee na diine di dana yàqu diine islam bi ku nekk di nga am sa xalaat dugal ci la ma fi bàyyi won di ngeen ko yok waye ay tam bnu maryam bu ñëwee ak mahdi dinañ ko raxas ba mu set wit maanu des ci kaw suuf can go to London road, can go to Raiken, can go to Tekken, dina di jël wax na mu nekkoon ñu dem ray li nga xam ne mooy matul yàlla yàlla mooy aar dina lislaam ci de lu ci bokkul day gañaat parce que ndax yeneen bi nee na yàlla dig na ko ne téeméeri ak yu ne ca ba yàlla dina ko dëgëralee koo xam day wax sunna rek di yeneen bi jàngale woon rek alquran rek beneen bi bokk kon yàlla moo garanti ci diine yi kon nag loolu bokk na ci ñoom ñi nga xam ne mooy nasaaraay ñi ngi feetu ak di màggal guddi juddu Aysa ibnu Maryam boo ci àndee yow jullit bi ñoom dañoo jàpp ni yàlla la ne bul ànd ak ñoom ci feet de loolu mooy sababu feet doonte sax amuñu si ndigal waaye ñun tamit ñu ngi màggal guddi juddu yeneen bi alayhi salaatu wasalaam waaye amuñu ci ndigal ñun ak ñoom ñoo ci boo teree bii da ngay tere boo saxalee bii nga saxal bee parce que moo yem waaye nag ci mooy ci def tawassu ne hey gàmmu bi daal feetu jullit bii feetu feetu chrétien yow tamit xamal ni def nga lu rëy a rëy kon nag moo yem maka tax jullit bi da ngaa war xaar boo amee ndigal nga def soo amul ndigal nga bàyyi téere baa ngi tax dari ñun ñëpp ko jàng wala yaxillu lahum daganul ci mukallaf an yafaala fi'lan mu def benn jëf hatta yaalama lu hatta ci xamul dem borom xam-xam borom xam-xam ويتبع بالمقتدين بسنة نبينا محمد والله وقت فلان إدارة إلى المجال كيف سنة المسلمين الله داري orang naan ko lamp jël seen su ndaw su tuuti suuf moo wax ji te yaa ngi koy jàng ci daara ne mu ko nag amul droit def dara lu dul dafa xaar atte yàlla te nii na inna allaha huwa almasihu ibnu maryam képp ku jàpp ne isa yàlla la yàlla nee na yéeféer laqad kafara alladina qaalu inna allaha saalisu talaata képp koo xam ne nee yàlla yàlla la Mariam yàlla la Aysa yàlla la weddi yàlla kon nag bul ànd moom ci ay seet doom ah yàlla moom ko dëgëree muy mucjisaat kon nag lan mooy taxawaayu jullit mooy mu gëm mu dégg lépp te alquran andi ko xamal na lii kat yàlla moo ko def loo Isa waaye du moom loole parce que ñi nga yëpp dañuy gis seen laam ci kàttanu yàlla ndax yàlla ëllëg bu ko dekkilee dina wax ak moom de moom Isa a anta qulta linnaasi ittaxiduuni wa ummiya ilaahayni la duunillah yàlla dina ko taxawal ëllëg ne ko ey yow Isa ey yow Zeyd ndax yow yaa digaloon taw xeet ñu lay jaam naan yàlla nga la ñu ko wax subhaanaka tudna sakte la la ñu ko wax bu jikko xala ni abdullah kon amu ko koy ya kon nak xamal ni do jaamu yalla yeneen ni yalla la ray ko ko ni nga gëmé yeneen ni bari ta ko la ñu nga wara gëmé yeneen yépp ci séparé kenn kon nak fofu la ñu yémalé ko tebbi abdullah ala wa rasulullah alihi wa rasulihi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم